nee na saxaaba yi daal yelloo nañ bu baax a baax fépp fu ñu jaaran rek mu tawul ko taw bu rafet jàpp ne moom ak bëgg àddina mbaa dara taxu leen woon a jàppante yi demee noona tawul ko rek gis ko gis ni bu rafet jàpp ne itam seeni xalaat ci diine mooy xalaat yi gën a rafet ndax dañoo jàkkaarloo yonante bi tàng ci leeram te ku bokk te ñoom amoo loolu kon nag seeni yoon ci wàllu diine nees naa jàpp ne mooy yoon yi gën a rafet wa taaxatu war na itam topp li aimmatil muslimina ñeel kilifay jullit ñi min wulaati umurihim ci way méngoo seeni mbir maanaam mooy way faloo seeni mbir wa ulamaihim ak seen way xam jullit ñi ca cosaan faaw dañuy am koo xam ne moo leen di jiite kookee nag daal ci gox bu nekk mu teg fa koo fa toogal ñu wéyale alquran ak addis ci dundu doomi aadama yi nga xam ne dañuy àtte woo ci alquran addis loolu moo xewoon moo doon cosaan fi yonent bi jógee xulafaa yi nga waxoon ñoo ko wutu bañ fi jógee ñoo wutu leen muy wéy loolu nag saa yu amee rek ka nga xam ne moo jiite jullit ña ak ñi nga xam ne ñoom lay toogloo ci béréb ñu wutu ko fa ak boroom xam-xam yi nga xam ñoom lay diisool ba mën a xam la alxuraan ak addis wax ba mën koo wéyal ñooñu kon topp leen lu war lay doon ndax topp leen topp yàlla rek la waaw ndax su borom dane atixullaha wa atixu rasula wa ulil amri minkum dangeen topp yàlla yonante bi topp ñu féeti woo mbir yi ci waaye nag minkum ji am na ci solo maanaam bu fekkee ñu ngi wéyal alxuraan ak addis topp yàlla kon ñu war leen a topp waaye nag lu suñ jamono ji mel léegi nga xam ne moom dañuy teg fee la yàlla bëgg nit ñooy seet xalaat ya leen neex ñu wate ko di ko wéyal nag loolu mooy day waar su boobaa jotiwut ak nag lii dara watti baaxu salafi ak topp dawal ba assaalihi bay aji yiw waqtifaawu asaarihim ak xentu seeni saawo seeni saawo mooy fañ jaaroon wal istixfaaru ak sàkkul njéggal lahum ñeel leen dawal bu yiw ba mooy saxaaba yi ak ña toppoon ci ñoom ñoo ñëpp nee na dañ leen war a jéem a roy ci seeni wax ak seeni jëf moo xam day luñ jële ci yonante bi bu wër moo xam day seeni xalaat yi bopp ndax liñ ko waxee rek ñoo jàkkaarloo yonante bi tàng ca leer ya kon ñoo gën a rafet xalaat ci diine su ko defee ñu jéem a xañtu seeni saaw mooy jéem a teg suñu tànk fañ tegoon seeni tànk ndax nee nañu la baaxaloon ñu njëkk ñi rek mooy baaxal ñu mujj ñi tam su ko defee ñu leen di sàkku njëggal ñoom ak bépp jullit bu jiitu rek daañu sàkku boo dee ñaan ngay ñaanalaale rek mboolem jullit yi nga xam ne ñoo jiitu dawlu la foofee ca këru dëgg ga wa tarkul miraay ak bàyyi wirante wala jiddaali ak dàggante fi diini ci diine bokk na ci li nga xam ne war na ci mboolem jullit ñi ñu moytoo werante ci diine ak dóorante lay ci diine ndax loolu day woyofal diine ci xol yi rek li gën daal mooy bu ñu gëstu mbir ñu ànd caag tey ànd caag rafet pas-pas ngir yàlla bëgg rek dëgg ga feeñ ba ñëpp bokk ko topp waaye nag dóorante lay kenn ku ne ne ma li ma wax mooy am mbaa li ma wax mooy dëgg lu bokk te loola du du dëgg ne kon day indi werante werante yoo xam ne la ne la mooy dëgg gi feeñ ba noppi nanguwoo ko loolu moom bu amee rek mooy indi yàq yu bare bare bare loolu nag mat naa moytu ci diine lool lool watal ku kullima ak bàyyi lépp loo xam ne ah dasahoo sos na ko almuhdisoona way sos ña li way sos ñi sos mooy bidaa bidaa mooy loo xam ne daa jiyoonteeg bidaa mooy lu ñu sos te mu jiyoonteeg alquran ak hadis lu mel noonu nag dañ ko war a moytu bu baax a baax a baax ndax yonent bi nee na woon man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun su mbir mi ko ci sos lu ci bokkut dañ la koy delloo kenn du ko nangu wax ni sax mbir yu wax na ci sax ne bidaa bu ne ak càngute la te càngute gu ne sawara lay jëm moom daal bidaa daal moom bu dee bidaa bu jiyoonteeg alquran ak hadis mat naa moytu bu baax a baax wasalla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla àla sayidna sunu sang muhammadin muhammad nabiyi karim yonanteem wa ala alihi ak ci ñoñam wa azwaajihi ak ay soxnaam wa durriyatihi ak ay sëtam wa sallama tem dool leen wóolu tasliman dool leen wóolu kasiran guy aji bari xam nga dafa jeexal bunt bi nga xam ne moo aju ci pas-pasu lislaam balaa dugg nag ci fiq bi mujj li ci yonante bi nag teqaleeku diggante ñaari bunt ñi xam ne foofu la pas-pas bi yam mu dugg nag kon ci fiq bi baabu ma lii muy buntu la nga xam ne yajibu dana war a minhu ci moom alwudu njàpp wal xuslu ak cangaay li nga xam ne mooy tax nga war a jàpp ak lay tax nga war a sangu farata loolu la bëgg a wax ci bunt bi li ci ëpp dañuy jàpp ne gannaaw bu gëm yàlla jàllee julli moo gën a màgg ci lislaam te julli balaa baax laab da koo jiitu moo tax nag ñu njëkk a wax ci mbirum laab bi ñu dugg ci fiq alwa boobu njàpp yajibu dana war limaa ngir la nga xam ne yaxruju dana génn min ahadil maxrajayni bàyyi ko ci benn ci ñaari génnukaay ya min bawlin moo xam day saw aw xaa'itin wala xayta aw rihin wala aw gelaw aw limaa wala ngir la nga xam ne yaxruju dana génn yaxruju dana génn min azzakari bàyyi ko ci zakara min masiyin te mooy masiyu maa xas li zakari ànd raxas zakara sa kullihi léppam min hu ca masiyu ma nee na bokk na ci liy toj jàpp ba kooka war a jàppiwaat ñaari bunt ñaari bunt yi nga xam ne mooy buntu suuf bi ak buntu saw mi fekkee la ci génne moo ca baaxoo génne te ak wértam la àndal xam ne ak wéra di wéralu ko su boobaa kon loolee génn bu dee buntu suuf bi mën naa doon xayta mën naa doon gelawal dana toj njàpp ma bu dee buntu sawukaay bi mën naa nekk saw mën naa nekk masiyu mën naa nekk waddiyu mën naa nekk maniyu yëpp daañu ko leeral kon nag lu bàyyi ko ci kenn ci ñaari bunt yooyu daal te mooy la fa baaxoo génne bu fa génnee ci wér waaw kay su boobaa moo xam saw la moo xam xeeta la moo xam gelawal la mooy ngelaw génne ci buntu suuf bi wala bu dee ci sawukaay bi moo xam day masiyu wala waddiyu wala maniyu loola dina toj njàpp ma waaye bu fekkee la fa génne woon daaw fa génne mel ne ay sax moo ci génne wala ay doj su boobaa loolu toj njàpp ma ba tey bu fekkee kooku daa wéré di nga xam ne loolu nu muy génne normalut wéré di nga ko waral loolu la ñu xam jokkale am jokkale mën naa am ci lu ne am jokkale mën naa am ci saw mën naa am ci xayta mën naa am ci kelewal mën naa am ci mës yu mën naa am ci wëdd yu mën naa am ci mën yu léegi am wéré di tax muy génn te li ci ëpp noonu la koy def kon loola du doon jàpp ma man la sax muy génn te muy jàpp xanaa daañu sopp rek bu fekkee ne ndox yomb na tey seddul ba mun naa sedd bi day métti ci man ci ma jàppaat daañu soog ko julli gune mu jàppal ko waaye ndegam moo awérat la moom bu mu faale liy génn mu ko yàqal dara ci jaamu yàlla léegi nag bu dee masiyu dana wax lan mooy masiyu waaye day sowe soo xam ne bu génnee du ñu yem ci raxas fa mu taq dong day aaji woo ñu raxas sawukaay ba fa mu saxe ba fa mu yem maanaam góor bu génnee masiyu dañ koo sant mu raxas sawukaay ba fa mu tàmbalee ba fa mu yem doonte sax ci bunt ba képp la yemit loolu diggalal lu ñu jox rek suñu su ko bañ mu ne nag wax wa moom mag yu maawun am ndox la ab bu yobb muy aji weex raqiixun muy aji sew sew mooy loyox maanaam bañ a fat bañ a far daal yaxruju moom dana génn xindal lazati fa bànneex ba bil inhaasi ci jógu sàkkara xindal mulaaxabati fa foxanteeg jigéen awi tazkaari wala xalaat jigéen maanaam bu góor gi dee xalaat jigéen mbaa muy foxanteeg moom ba ab sowukaayam jóg xëy na yooyu jamono ndox mu weex te bañ a far mën naa génn ci sawukaay ba loolu moo tudd mas yu nga xam ne bu fekkee jàppoon na jàpp ma toj na te it fu mu ko taq rek soobee la war na koo raxas te dañ koo digal mu raxas sawukaay ba fa mu saxee ba fa mu yem doon ci sax fa ci taqul la it loolu moom digal la rek moom wa amal wadd yu daal wadd yu fahuwa moom maawun am ndox la ab bu muy aji weex xaatirun muy aji far maanaam moom day far moom yaxruju moom dana génn bi isil bawli ci gannaaw sawma yejibu dana war nag minhu ci moom maa la nga xam ne yejibu dana war minal bawli ci saw wadd yi moom ndox mu weex te far lay doon te li ci ëpp gannaaw bu kooko sawee ba raxas ba noppi mbaa bokk ci gannaaw sawma ba saw may door a noppi rek maanaam itam nag mu dem ba jàpp mbaa bay jàpp mu door a génn muy ndox mu weex mu far li koy ëpp génn mooy bu kooko amee ab sedd wala muy ku tawatoon ba manqué deret mbaa yenn wàllu diis ba yenn ko ko xam ne léegi yaramam daal amee nag coono mbaa mu seere woon ay fan di mu coono yu mel noonu daal dana tax wadd yi di génn ci moom loolu nag sobe la tey dana toñ jàpp moom nag fu mu ko taq rek mooy mat a raxas waaye moom fu mu agul du aajo raxas day bañ nga jaawale ko mas yu mas yu moom day noonu da ngay raxas sawukaay ba fa mu saxee ba fu mu yem doonte taqu ca kii nag moom moog saw ñoo yemoo rek fu mu la taq mat a raxas waaye fu mu la taqut du mat a raxas wa amal maniyu daal maniyu fa huwa moom almaa u mooy ndox ma ad daafiqu may aji jiñ allazi ma nga xam ne yaxruju dana génn xindal laddati fa bànneex ba alkubra ba gën a mage bil jimaaxi ci sababu booloo booloo googu mooy jote góoru jigéen raihatuhu xetam karaihati talhi mi ngi mel ni xetuk tóor tóoru tàndarma maniyu moom góor am na ko jigéen am na ko waaye day njëkkee moom góor ndox la moo xam ne bu fekkee ne kooka day xalaat jigéen mbaa muy laalanteeg moom ci yaram loolu mën na koo génne waaye bu dee génn la yëg ni muy jiñoo di génn ba tey jote góor ak jigéen mën naa tax ndox moomu génn muy mën yoo léegi nag su fekkee mën yu ma dafa génn te am te bànneex jàpp rek lay toj mel ne jiit fett ko rek mu daal di génn wala ànd naag bànneex waaye bànneex booba dawul ko génne mel ne yaramam dafa ràmm mu wokk ko rek am na bànneex ca wokk ba mën yu génn wala mu jur góotu rek mu génn loolu lépp bu amee bu ci amee bànneex itam booba bànneex dawul ko génne yooyu yëpp moom la ko jëfar mooy raxas ko rek fu mu taq ak itam njàpp ma toj waaye bokk yi bokkul ci yi waral sangu farata bala caa sangu farata war rek mu génn ànd ak bànneex tey bànneex ba ko daa génn naka jekk-jekk boobu nag mooy mu doon laalante ci yaramam ak jigéen loola mën na koo génne jote geen wax nag ne dana ko génne dana ko génne sax waaye dana la leeral ne la ndegam moom bopp solukaay ba rek bu xasee dugg ci awray keneen dana war a sangu farata kon daanaka moom mënoon naa bàyyi rek ba àgg ca waaye lim la xamal gun daal mooy man yi moom ndox la moo xam ne day weex moom it day génn ci jote góor ak jigéen te xet ga dana di xeeñ xetuk tóortóor tàndarma ca ka xam ca ña xam tóortóoru tàndarma dana di xeeñ xetuk mooñ su demee boobu nag di xeeñ xetuk nen wa maa ul mar at ndoxum jigéen naawoon am ndox la raqiiqu mi aji sew maanaam mu loox farut asfaru mi aji gel gel mooy puur ñu wax rose yooyu jibu dana war mil fu ci moom attuxuru ca ngaay maanaam man yum jigéen moom moom góor dañoo wute moom jigéen moom day loyox ba noppi nag puur xaw a rose waaye nag mun ci mën doon dana waral kooka sangu farata ci kaw nag mu ànd ak bànneex ba nga xam ne moo ko daa génne mooy fa yooyu jibu dana war min xewta ci lii tuxru jamihil jasadi sangu mboolem yaram wa kamaa yajibu ni muy ware min tuxril xaydati ci laabuk mbërëk nee na ku génne man yi moom itam ànd ak bànneex ba ko daa génne dana war a sangu farata du yem ci yàqum njàpp dong ba tey jigéen bu amee deret régal li ñu wax mbërëg ba mu jeex mbaa deret wasin dana ko wax ci kanam ba mu jeex ba tey loolu dana waral sangu farata kon yi sangu farata xëy na mu susale ko waaye mën nga koo susale yow mooy génn man yi moom itam ànd ak bànneex ak bopp sawukaay bi bu demee ci beneen sawukaay wala beneen awray jàmbur daal ci gàttal ak jigéen bu deretam jeexee moo xam bërëg la moo xam wasin la yooyu mooy waral sangu farata wa amma damul istihabati ndaal dereti jàngoro wa yajibu dana war mi fu ci moom alwudoo njàpp deret jàngoro mooy deret joo xam day génn ngir ak wéradi dana jàpp da cee war waaye moom njokkale mi nga weesu ñoo yemoo bu fekkee dafa bari xaw a taqoog moom mbaa mu far taqoog moom benn yoon du yàqatim njàpp daa ngi sopp rek ne mu koy bëgg a waxee bu fekkee ne moom ndox yomb na te seddul ba nga naa sedd bi jàpp da ciy metti daa ñu soppale julli bu ne nga jàppal ko tax mën naa wa yustahabu def na sopp laxaa ñeel ko wali salisil dawli ak ñeel aji jokkalem saw ay yatawat ba a ñu jàpp ñoom ñaar li kulli salaat ñeel gépp julli daa wax jokkalem saw waaye du jokkalem saw dong xaytaag girawal yépp rek loo ci xam ne am jokkal la bañ ne du yàqati njàpp mi du tey ñu sopp rek ndegam njàpp mi yomb na balaa julli génn julli rek njàpp njàpp mu yees waaye loolu sopp dong la bu ko neexee doyloo rek njàpp moom yoroon wa yajibu dana war alwudu njàpp min zawali xaqli ci dañu xel mbaa nga ne ci rëccu xel waaye benn la binaw min ci sababu nelaw mustasqalin yu di ñu diisal aw irmain wala xëm aw sukurin wala màndi aw taxabuti junoonin wala sadduk ndof sadduk ndof mooy say rek say nee na ko amee woon jàpp gannaaw ba nag mu tàggoo sagoom bu sagoo si dellu si rek say boo mu jàppaat ndax mënuñoo xam ba xam jamono yam tàggoo sago def na fa lu toj njàpp te yëgu koom déet da ci wàññi ay benn benn ci waral tàggoo sago muy nelaw nelaw yu am doole nelaw yu diis muy nelaw yoo xam ne li nga sa loxo li nga yor ci sa loxo bu rotee doo ko yëg mbaa mënees naa wax fi sawet kàddu gu xumb te doo ko dégg mbaa kenn mën a dugg ba génn te doo ko yëg loolu nelaw yu diis la kooku moom su jàppee ba noppi def ko rek say ba mu jàppaat wala xam xam day tax a tàggu sago wala màndi donte màndi ga araamul sax niki dafa naan garab rek gu ko tubaab jox mbaa mu naan soow mu am doole rek xamutoon day màndal far ca màndi kon tàggoo naa sagoom rek faaw war naa jàppaat wala boog mu say bu fekkee say na ba xim yi ba tey faaw mu jàppaat du doon jàng bind bu ko jafe lool sax ba nga xam daa mujjoon daal yitteem jëpp jëpp jëpp jëpp jëkkutoon lu may ci lim doon jàng rek amut bàyyiwutoon xelam ci boppam sax la gën a wóor mooy balaa jëfandikoo waar luy aajo wa jàpp mu jàppaat ndax xamuñu boo xam yooyu jamono ba mu ñàkkee teewlu boppam def na lu lu tañ jàppam dit waaye jibu dana war alwudo njàpp mi nal mula masati ca laalante ga lil lëddati ngir bànneex wala mubasharati ak jonjonte ga bil jasadi ci aw yaram lil lëddati ngir bànneex wala xubalati ak fóon ga lil lëddati ngir bànneex muy góor muy jigéen koo ci xam ne jàpp na ba noppi laal moroom ja mbaa mu jonjonteeg moom ci yaram mbaa mu fóonanteeg moom yooyu yëpp ñoo yemoo dañuy seet ba xam bu fekkee ba muy def loolee booba bànneex la ci jublu woon kon bu ñu seet ba xam am na ko ci am amu ko ca su boobaa moom jàpp ma toj na rek moom ñaareel bi nag mooy jublu doon bànneex sax ca ba mu koy laal mbaa ba muy jonjoog moom ci yaram mbaa ba mu koy fóon waaye nag far na ci am bànneex kooku day toj benn rek moomul toj mooy ba mu koy laal mbaa ba mu jonjoog moom ci yaram mbaa ba mu koy fóon booba jublu ci woon bànneex te it amu ko ca boole ci te xam nga fóon mën naa muy fóonu tàggoo di ko ñeen ñi defee laal gi moom mën ngaa laalanteeg moom te jubloo ko woon mbaa ba nga koy laal da nga ko doon jox dara rek jubloo ci woon bànneex jonjoo gi mën naa am ngeen tase ci oto rek wala ngeen tase ci mbedd mu xat mi rek yooyu yëpp mën na ci am jubloo ci woon bànneex amoo ko ci yooyu yëpp moom du toj waaye bu fekkee bànneex nga jubloo moom dal nay toj am ak bañ a ama ci yam bu fekkee jubloo ko ci waaye far na ci am it ba tey jàpp ma toj mu des nag ka nga xam ne ci bopp moom la ñu laal ka ñu laal bu fekkee magum jëmb la te am na bànneex ci laal ga jàpp war ko bu fekkee amu ca bànneex jàpp du ko war lu ne nag moom moo jublu woon ñu laal ko te jublu ca bànneex ca laal ga kooku moom di daal di mel ne kon jëmmi ko ko laal nga xam ne moom it am jàppam day toj wala masjid zakari ak ci laal zakara bokk na ci sawub tañ jàpp bu dee góor gi mu laal ab sawukaayam te laale ko li xong ci tënkam mbaa li xong ci baaraamam bu ko laalee li ñuul ci ay baaraamam mbaa ci tënkam du toj tey mu laal ci jëmm ja bu laaloon ci kaw tubéy ji mbaa silib ja du toj tey mu taq ci moom bu daggoon dal fële mu laal ko it ba tey du toj ba tey muy yooyu boppam lañ wax waaye bu laaloon sawukaayu jaambur it du tax mu toj waxtu li fa wuteef na fii masil marati ci laalu jigéen ja farjaxa ab sawukaayam fii ijaabil mu booy ci waralu jàpp ga bizaalika ci loolee dañoo wutee ci jigéen bu laalee ab sawukaayam ndax loolu dina toj njàpp wala déet am nañu ne nun ko mën di laale rek mu toj am nañu ne nun ko mën di laale du toj du toj mu safaanu jooja am na ñu koy teqale bu fekkee dafa lonkal baaraam mbaa mu ngëb ca dana toj bu fekkee nag lonkalu baaraam ngëbu ca du toj teqale boobu nag moo ñëw ci aljawharun nafis bi nga koy jàng waye jibu dana war ak tuxuru ca ngaay la mim maa ci la nga xam ne dakar naa tuddoon nanu ko dakar naa tuddoon nanu ko min xuróojil maa yi ci génnu ndox ma ak daafi ximee aji jiñ li lëbbati ngir bànneex fii naw min moo xam ci ay nelaw la aw yàqal zatin wala ci yeewu min rajulin tukkee ji góor aw imra at mi wala jigéen awin xitaaxi damil xaydati wala dogug dereti mbërëk awin istihaadati wala dogug dereti jàngoro waaye kooku moom daañu fi taxawaat awin nifaasi wala dereti wasin aw bi maxiibil xashafati wala ci fàddu bopp sàkkara fi farji ci pay wa in lam yunsil ak doon te wàcce wuy man yo dalaa bëgg a far si sëñal yi nga xam ne mooy waral ca ngaayul farata ba ci njëkk mooy mën yu génn ci moom bu fekkee nelawul moom dañ cey sart mu ànd ak bànneex bu fekkee amul bànneex ni ki jiir moo ko fet waxoon naa ko day tañ jàpp rek waaye du waral sangu farata bu àndee ak bànneex waaye bokk te da ko daa génne ni kii dafa wokk rek ab ràmm ci yaramam mbaa mu jurgóoti loolu boobu bànneex dawob génne ba tey boobu day tañ jàpp ak mu war koo raxas rek waaye du waral sangu farata fekkee ne ci ci yow la woon day aajowoo mu xool ba am bànneex ca xool ba mbaa mu laalante ci yaram ba am bànneex ca laalante gi ba mu génn loolu moom boobu bànneex daana ko génne bi ci des nag moom mu jëmmi jote gi ci boppam moom fàttali bopp sàkkar bi mu wax dana ko dugalaale ndax ne ko bopp sowukaay bi rek bu xas ci dugg sama farata war ko kon foofu mën na faa dugg kon génn man ñi te ànd ak bànneex boobu yaa génne mooy benn ci waral sangu farata ñaareel ba nag mooy jigéen amoon deret ci mbërëg ba mu jeex kon war naa sangu farata wala mu amoon dara ci wasin ba mu jeex ba tey war naa sangu farata muy ñett wala boog góor gi di mu kàllaf ab sawukaayam dem ci awray keneen moo xam ci buntu suuf bala moo xam ci buntu sowukaay bala su boobaa loolu mooy fàddu bopp sàkkara moom it xeetu janaaba la moo man yu ma génn te ànd ak bànneex ba ko daa génn ñooye mooy ñoo yëpp dañuy waral sangu farata léegi mu dugal nag jeexu dara ci jàngoro moom dañ cee sopp rek sangu waaye sangu ga waru ca jigéen boo amoon dara ci jàngoro ba mu jeex moom ba dee timbarak ji jeexee sangu woon na jooju moo doon sangaayul farata waaye nag jeexu dara ci jàngoro dañ caa sopp rek moom sangu léegi mu ne nag boo indam ñun sil mooy day wane ne bu fekkee ne bopp sàkkarab mu kàllaf mi dem na ca awra yi keneen su boobaa sangu farata war ko doonte sax dara génnut ci man yu doonte amu ci bànneex itam du tee rek sangu farata war ko ndegam nag bopp sàkkara bi dem ci awra joojee day waral yu bare bari mu wax ci ay benn benn suufale ko nga dégg muy wamax yi bul xasafati fàddu bopp sàkkara fil farji ci bay yoojibu dana waral alxuus la cangaay wa yoojibu tamit waral alxadd gitan wa yoojibu tamit waral assadaaqa canga wa yu xassinu te muy sengewuloo wa yu xassinu te muy sengewuloo azzoojeyni ñaari way dencante mu jëkkër ak jabar wa yu xellu te muy daganal al mu tallaxata ka ñu fase salaasan ñetti pase lillës yi ñeel ka nga xam ne tallaqaxaa fase woon na ko wa yu siru te muy yàq alxaji aj ga wa yu siru te muy yàq assawma koor ga maanaam mu kàllaf mu góor mi bopp sawukaayam daa jëlal lépp bu demee ci awray keneen ndax far ji jëm wax jublu ci sawukaay ba kese buñ suuba nee naa ca la daa bari ñu waral dana waral ca ngaay moom xaman nga ko ci li waxe waaye da koo baamu ngir sutale ci yee day waral sangu farata ñaari ba moom day waral géttan bu fekkee def na ko koo xam du soxnaam jamonoy jaam amee du taaraam maanaam du jaam bu jigéenam su boobaa kon njaaloo na des na ko war a géttan géttanu njaaloo dana waral can mooy kuy xës may soxna bu jotee ak moom ba bopp so ba bopp sowukaay ba dugg rek daal la koy amel can gu mat moo tax mën naa day waral can te bañ koo mayoon nag léegi jotiwut ak moom dara ba loolu am sax far ñu tàggale ko mu fase ko kon na koy jox genn wàllu can waaye du ko jox can gu mat léegi mu ne day sëngiwuloo jëkkër ak jabar maanaam ñaar ñi dencante ñu xësee jotee ba bopp sowukaay ba dugg rek dañuy jàpp ne kon ñoom sëngiwu nañ sëngiwu nañ mooy buñ fa jógaatee nag léegi njaaloo dañ leen di rey waaye du ñoom rek ci caw leen bàyyi léegi mu ne itam day daganal kañ fase woon ñetti woon xam nga dañuy wax ne sa soxna boo ko fasee ñetti fase bala nga ko sañ a takkaat faaw jëkkër dafay jaaraat mu lay wan ne la nag boo fase woon sa soxna ñetti fase bañ ne faaw na fi jëkkër jaaraat kookee ko takkaat bu jotee ak moom bu bopp sowukaay ba dugg rek yow mi ko njëkk a yor mën nga ko laal jëlaat xam ne kon joteeg bopp sowukaay boobu daal nay daganal soxna si ki ko njëkkoon a yor léegi mu ne day yàq aj ga bu ko yàlla dogal daan ko wax aj moom daam foo xam ne muy fam armale bañ ne tey la guddi arafa moom saa yu fi jotee jigéen rek aj ga yàqu ba tey guddi googee nga xam ne muy guddi dam taxawee arafa ba ci jotee moom mu yàqu ba ci bëccëg ba nga xam ne mooy bisu fukkeel bi bu fekkee sànneegul jamare xàq ba defagul tawaaful ifaada te muy ci bisu fukkeel boole ji saa yu ko defee rek aj ga yàqu xëy na ñu leeralaat ko bu ñu tolloo ci aj ndax moom du ko susile fii rek ngir yi ñu waral daa bari rek mu jukki la ci yooyu waaye moom dëkkutoon fii leen da yàq koor rek noonu la koo xam daa am koor moo xam góor la moo xam jigéen la jote boobu amee rek bopp sookaay ba dugg rek koor ga yàqu na wa isaara at ndem gis na almaratu jigéen ja alxasata ñooy ga albaydaa ga aji weex te taharat kon mu sangu maanaam da lay wan nag mandarga yi nga xam ne bu ko jigéen gisee ci lay xàmmee ne deretam jeex na mu war a sangu nag léegi delluwaat ci jaamu yàlla ak yam daan def bokk na ca li ñu wax ñooy ndox mu weex lay doon moo xam ne bu deret ji jeex day waral di génn ci sawukaayu jigéen ji ndox mu weex moomu nag bu ko jigéen gisee na xam ne kon deretam jeex na mu daal dem sangu tàmbali jullee ko woor wa kazalika naka moom isaara at ndem gis na aljufoo fa fendi ga fendi mooy wow te taxarat kon mu sangu makaanaxaa ci palaasam ba mooy ci waxtoom woowee rek la jublu raat fu moo xam gis na ko baax da yow man ci gannaaw benn fan aw yow may ñu wala ñaari fan aw saaxat ni wala wenn waxtu fen di mooy mu jël aw sagar mbaa wëttéen moom jigéen ji daf ko ci biir ab sawukaayam génne ko xool te taqul deret loolu mooy alju foofu tegtal na ci ne deretam jeex na su ko jigéen defee na xam ne deret ji jeex na moo xam nag deret ji daa tàmbalee sottiku jël bu gàtt rek mel ni wenn waxtu mbaa boog mu dem ba am benn fan wala ñaar saa yu gisee lu mel nii daal moom mooy def ab morso ci biir sawukaayam génn xool taqul deret ba mu gis ndox mu weex moomee na xam ne kon deretam jeex na daal di sangu tàmbali jullee ko woor ba xam ne yàlla dogal suma in xaawa daxaa topp ndéem delsi na ci moom damun deret aw raat wala mu gis sufratan sufratan ab gel-gel aw kudrat wala tikk tikk mooy woon rax situm yàpp tarakat kon mu daal di bàyyi assalaatu julli ga su fekkee daal gisoon mandarga mu koy wan ne ko sa deret jeex na yàggaatul nag mbaa ci gannaaw ba daal moom mu gis deret lëm mu gis jëmmi deret muy génn mbaa mu gis lu xaw a puur mel ne deret mbaa mu gis lu mel ne raxasitum yàpp na xam ne kon deret jaa ñëwaat mu daal di bàyyiwaat julli àtte boobu àtte ku toll ci deret su ma itam xataxa topp ndem dogaat na xam saa walis ko yow tasalat mu sangu wa salat te mu julle ba tey deret jooju mujj gis bu jeexaatee itam mu daal di gaaw sangu delluwaat di jullee ko war na mu doon def loolu nag kon mooy lu mel ne kuy génnal da koy gis tey boole gi di ko gis di ko gis tey boole gi ko gis lu mel noonu nag day wàññi bis yi nga xam ne ca la koy gis rek ba keroog ñu mat aadaam maanaam ba keroog ñu toll ci na war nam daa tollu jeex dañ ko jàngale woon ci aljawharun nafis su gisee daal lu lu koy wan ne ko deret ji jeex na daal na sangu tey tàmbale jullee ko woor su ko gisaatee bàyyi julli ak woor ga delluwaat ci àtte ku toll ci deret walakin waaye daalika loolee kulluhoo léppam kadamin mi ngi mel ne ki deret waaxilin juddi jenn fil iddati ci idda wa istibraay ak laablu xidda moom dana weex a ñëw tuuti ca kanam maanaam jigéen buñ ko fasee mbaa jëkkëram faatu ngir ba muy toog ñu wóorluwaat ne fee mu nekkoon ëmbewu fa dara ngir boobu moo tudd idda laablu nag moom mi ngi daan gën a siiw ci jamonoy jaam amee boo amee jaam bu jigéen bu yees doo jekki-jekki joteeg moom da nga koy laablu njëkk ba xam fee mu fee mu bàyyi ko am na fa am déet ba tey nag jamono yi laablu war naa am xëy na dañ koo xamul rek waaye mooy bu fekkee ne jigéen góor daa joteeg moom jote goo xam ne gu aay la nit ki mu jaawale ko soxnaam ba joteeg moom wala boog liy wax njaaloo ñi mooy yàlla ba jote ci sawukaay kon jigéen joojee warees na koo laablu ba xam jote googee am ambi na ca dara wala déet te bu dee kuy gis deret dañuy wàññi ay laab mooy gis deret ba laab dellu gisaat deret ba laab dellu gisaat deret ba laab ba gisaat deret ñeenteel ja mu yetti laab nga xam diggante boobu bu fekkee amutoon jëkkër kenn waru ko faa takk bu fekkee amoon na jëkkër itam jëkkëram ja daa war sorenteeg moom bañ a joteeg moom dara ba kera laab lu googu jeex léegi nag biñ dee wàññi laab yi ca idda jee mu tuddoon mbaa ci laablu gi ñuy wax léegi deret ju gaaw rek ne soteet daal di sotti ku jeex kenn du ko wàññi ne ak laa ba ngoog déedéet faaw rek bala ñu ko wàññi muy deret di ak laab bu dee ci iddaat laablu gu demee nii day aajowo mu am bis mbaa lenn bis buñ ko lëntilee nag ba xam deret daana toll noonu am déet nag ñu laaj ko jigéen ñi nga xam ne ñoo ko xam bu dee ci wàllu jaamu yàlla moom bu deretam ne soteet daal di jeex dañuy àtte ne mbërëg la jàppee nitam ne ak laab am na daal di seet nga des ci waxtu wa ba xam julli war na ko waru ko te it faaw mu war a sangu farata nga xam ne kon mboolem àtte yi ñuy wax rek ci deret aku laab te ci daal di ñëw léegi nag bu deret jeexee bañ ne jeex na mu sangu gannaaw ba jeneen ñëwaat nag kañ lañ koy wàññi muy yaari deret yu bokkut moom lay bëgg a leeral xataa yot xoda mbati sore maa la nga xam ne bay na damay ni nekk na diggante yaari deret ya mis la samaaniyati ayaamin kem juróom-ñetti fan aw xasurit nu mbaa fukki fan fa yokkoon te muy nekk xaydan dimb rek mu tànn fan mu dimb ñu sos loolu da ko waxaay boo ko jàpp jàppal nag jàppal la nga jàngoon ci aljawharu nafis dañoo waxoon ne su deretam jeexee ñu tegaat sa biir mu ñëwaat dañuy seet fa njëkk ji jeexe woon ak fi ji ñëwaate su fekkee diggante mat na fukki fan ak juróom dañuy jàpp ne kon ci njëkk ja dereti boppam la foofu la yemoon ji moom ji yees la am àtte boppam waaye diggante bi li fekk matul loolu li ñu wax juróom-ñett mbaa fukk mbaa ñett mbaa juróom mbaa juróom-benn yëpp dañuy jàpp ne dellu ji daa bokk ci joojee rek dañ koy mottalee joojee rek mu yooyu ba toll na war a toll kon nga teqale foofu bala ñoo jàpp ne deret njëkk ja foofu la yemoon ji ju yees la diggante bi day mat fukki fan ak juróom waxtu ma juróom moo gën jaa néew yi làpp waman jigéen joo xam tabaada sax na bihaa ci moom adda mu daraja bala xat kon mu sax kon mu jot lay fi di waaye mooy kon mu sax xam sa taxawal fukk ak juróom yow mën ci ay fan su ma xiyee topp moom mustahadatun aji amee dara ci jàngoro la tatataharu dana sangu wata soomu te muy wor watu salli te muy julli waaye tiihaa te koy dikkal sow juhaa jëkkëram jëkkëram dikkal ko mooy jëkkëram joteeg moom dangam soob na ko rek daa wax ne koo xam daa gis deret nag deret ja di ñëw rek bañ a dagg kon day dem ba dayoo ba nga xam ne waru koo weesu nga xam bi ci àggee fa la war a yam te loolu mooy bu fekkee teel ko njëkk dal moom lu yàgg-yàgg ba war a weesu fukki fan juróom su amee fukki juróom moom te jeexut na xam ne jàngoro la mu daal di sangu di jullee ko woor te bu neexee jëkkër mu joteeg moom lay génn naa dañ koy jàpp jàngoro su fekkee dafa amoon aada mooy def na ko defati ko dañuy seet diir bu mu daal am jeex bu ko amee tey te jeexut na ci yokk ñetti fan bu ci yokkee ñetti fan gannaaw ba jeexut na ko jàpp jàngoro rek moom te jullee ko woor ko def yëpp mu des nag bu fekkee aadaam dafa doon fukk ak juróom naka jëkk moom daanaam fukk ak juróom door a jeexal kooku nag moom boo amee fukki fan juróom te jeexut it day jàpp ne jàngoro la rek kenn du ko ko weesale fan juróom ci la yem jàpp ne jeex na di jullee ko woor lay génn wér jàngoro la mu des nag ku ëmb ku ëmb moom teqale woon nañ ko léeg-léeg deret dana dem ba am ñaar fukki fan léeg-léeg itam mu dem ba am weer boo ko dégluwaatee ci aljawharun nafis teqale woon nañ ko xoo teqale bu gën a